si la ñuy acté li nga xamante ne moo di amnistie bu Ousmane Sonko mais loolu naka lañ ko mën a tuddee jamono ji waaw merci beaucoup merci beaucoup Babou Ndour euh, dama bëgg a leeral ni rek xam nga parfois il est très difficile parfois Sénégal hmm. euh, ngay def politique fii hmm. euh, parce que anam bi ñu koy bëgg a de dafay xaw a contradictoire bu fekkee ne da nga bëgg qu'importe foo mun ti féete ak loo ti def nga jub hmm. xam nga la plupart des temps dañu bëgg a def benn distinguo entre le droit et la politique et que boobu nag moo ñu topp En réalité, la politique devrait en réalité avoir en bandoulière le droit et marcher sur les rails du droit. Mm-hmm. loolu mooy dëkk bu bu ñuy bu am dëkk bu normal. Mm. mais fii lan lañ lay wax quand la politique entre par la porte le droit sort par la fenêtre. mais kañ lay baaxoon alors que ça va nekk loo xam ne de pair. Mm. parce que la politique ce n'est rien d'autre que des des actes mais l'ensemble des actes sont réglementés support bi lan la droit la. Mm. qu'importe secteur boobu mënti dem léegi nag bu fekkee dañu bëgg a ba pare jël les textes de loi teg ko de côté bëgg a politique <laughs> mais avec ça va être très compliqué parce que la plupart des temps ñi nga xam ne dañuy yàgg ci politique ak suñu suñu suñu classe yi yàgguñu si noonu noonu noonu mais dañu lay wax ak ah, yow mënoo politique fekkee nii ngay politiquer doo ci teg déjà on te donne une idée da nga war a teg mooy da nga war a da nga war a njunjaag mm, mm. war a wax dëgg te te te te loolu ça mal bu fekkee ni man boo bu fekkee sama dëgg dama ko féetale grand parti ne dëgg bi yeneen ñeneen ñi waxuñu dëgg nekkuma lu dul ko partisan ak subjectif. Mhm. damay xool li nekk ci biir grand parti bu mën koo wéyale jàpp ni méngoo naag ak ñuy yoon ñu doxalee ko parce que quoi qu'on puisse parti politique la ñu far. Mhm. parti politique bu nekkoon ci opposition pendant des années et des années parti politique bu ànd ak yeewu askan wi et parti politique bu jàpp ni une opposition à gagné te àndoon nañ. Mhm. donc légitimement politiquement notre parti politique dans ligne claire et nette soutient mais qu'est-ce qu'on appelle action du gouvernement su ma jëlee la ligne collégiale de l'équipe ak man à titre personnel sama métier ak li nga xam ne jàpp naa ne ligne bi lu mu nekk nekk ligne collégiale lu mu politique dafa war a tegg sur les rampes du droit. loolu mooy wane ni assemblée nationale débat bi ñu am nii ñu bëri dañu jàpp ni la loi organique de l' assemblée nationale dafa baaxul. am dara lu si ñàkk baax. en réalité on parle des dispositions qui concernent le premier ministre. tous les autres actes yi ñu ne am na fa c' est encadré par des yu nekk bi moo tax lu ni. def nañ ko fa levé nañ impôt lu ñu wax ni def nañ fa motion de censure dem nañ fa indi ay yenn loi jëm koo voté lépp loo xam ne def nañ ko fa rek soo demee si loi am nañ ko am nañ ko xam nga lan mooy malheur bi. Mhm. le bi ñu waroon def ak mise à jour bi ñu waroon def ci cas parce que ni ñuy waxee nii day mel ni l'ensemble des actes yi passés c'est des actes illégaux wala anormaux wala actes yoo xam ne donc amul woon soubassement juridique. côté législatif. Ah, alors que amoon na am na ko. amoon na ko parce que ce n'est pas la loi organique dans son mm-hmm. entièreté. Mm-hmm. moo baaxul. parce que loolu buy dañ par parallélisme des formes loi organique moo koy génnee. Mm-hmm. parce que on peut toujours prendre des dispositions di ko modifier di ko toiletter mais cas bi en réalité dañu wax ne le premier ministre Ousmane Sonko parce que moi je peux parler de de la fonction et dépasser nit ki la personne d'Ousmane ko importe peu. loolu dañuy permettre ñu duñ def débat de personne mais on surfe sur les idées le premier ministre institutionnellement parlant mënul wax a wax a wax ba du def déclaration de politique générale ou devant l'Assemblée nationale su fekkee dañ bëgg a wax dëgg rek qu'importe beneen façon boo jël dégg naa léegi wax dëgg fa yàlla euh, grand bu wax na ko ne le peuple légitime bi nga xam ni tey moom moo fal ainsi de suite suñ demee foofu mais notre article 3 de notre constitution daf ne notre souveraineté dañ koy exercer par ñi nga xam ne ñoom lañ choisir ñu nekk nos représentants et nos représentants ce sont nos députés au du côté du parlement nos représentants ce sont gouvernement bi nga xam ne am na ci côté exécutif nos représentants en réalité ñooñu la donc suñu ñëwee la texte l'article 55 clair et net dit devant l'Assemblée nationale une autre définition de l'Assemblée nationale mënu nekk devant des universités faire nekk devant des avocats mënu nekk devant des journalistes moi pense que parfois dañuy wax benn affaire boo xam ni dañ ko wax nii rek ñu dem jël ko tellement au sérieux Ousmane Sonko en le disant bu 15 jours su ngeen ko deful dinaa dem fii il ne peut pas penser ça d'une manière sérieuse. il va le faire de. mais devant qui il, il va le faire de su ko defee. man maa parlant je t'ai dit tout à l'heure le mais su ko defee ñu ne la yow Babou journaliste nga Ousmane Sonko le président le premier ministre fait sa déclaration de politique générale nga yor carte invitation soo demee tu es complice <coughs> man mais bu ko defee day day day day gàkkal li nga xamante ne moo de suñu yoon réew sax du question gàkkal sax parce que gàkkal sax dafa nekk loo xam ni xaw na simple mais su ko defee c'est une violation flagrante de l'article 55 de notre constitution loolu moo raw gàkkal hmm. maintenant le problème est que une action gouvernementale loo xam ne dafa am constitution nu mu ko defee su ko bëggoon a def hmm. cela supposerait la modification de l'article 55 mu waxee noo xam ni dina permettre assemblée bi mu bëgg am mu defee ko fa. te mm-hmm. loolu xaju fi. Mm-hmm. même ñi nga xam ne député Benno yi. Mm-hmm. qui parle de la possibilité. xam nga de faire des actions allant dans le sens de ne pas permettre au président de la République de dissoudre de l'Assemblée nationale xaju fi la demande une révision carrément de notre constitution la procédure xaju fi gis nga nañ xool li war ñu di ko def pour man problème yi mës a am yëpp yëpp yëpp depuis nag Euh, li nga xam ne doyen Diop wax na ko depuis crise bi ñu amoon ci affaire motion de censure 62 les cinq motions de censure yi am depuis boobu ba 2022 deux sous la ci magistère euh, Macky Sall benn ko ci réussir woon te bu réussir crise lay ni hmm. yeneen yëpp da nga koy def nga demaat du du jàll et même bu jàllee le premier le président de la République. mooy fal kay waaw ah, dëgg yàlla pour reconduire le même. Ah, la même personne même individu. si si même gouvernement donc c' est c' la wax. kon dans di dafay daw wala ay moytu parce que xam nga àdduna da ngay da ngay xam nga olof jaay dañuy faral di wax. Mhm. daw yàlla xam foo jëm. daw. daw dañuy wax daw yàlla xam foo jëm parce que. waaw waaw pour moo fa rek mu foofu. donc déclaration de politique générale wax na ko léegi daf koy def à daw. a raison et il peut avoir raison si quelque mooy lan ko war a defee la ma war a permettre légalement institutionnellement ma dugg ko nañ corriger loolu. Hmm. mais léegi est-ce que l'Assemblée mais bu ñu déggee tey conférence de presse bu Benno Bokk Yaakaar taxawuñu pour defaraat li nga xamante ne moo di euh, manquement yi. waaw ah, amee xam nga foofu tamit dafay nekk une extrême. gravité xam nga lu tax dañuy fàttali du ay ab coobare nit le peuple hmm. daf laa dénk mandat la la jox fal la ngay dérouler sa mandat avec une mission régalienne donc su fekkee dafa am leen loo xam ne dafa nekk vide juridique bu mhm. fekkee dafa am loo xam ne dafa nekk carence bu fekkee dafa am leen loo xam ne dafa nekk wax dëgg fa yàlla loo xam ne ça peut bloquer le fonctionnement normal des pays taxaw parce que Benno Bokk Yaakaar ngeen ne du ngeen ko def mais ñi ngi fausser l'esprit d'un parlementaire hmm. est-ce que parlementaire Benno Bokk Yaakaar lay tudd wala Yewwi wala PDS man je comprends pas lan mooy le rôle est-ce que toujours bu ñu tuddee député rek dañoo war a tudd fi mu parti politique alors qu'est-ce qu'on dit le député du peuple hmm. et que ce peuple est homogène compact hmm. ce peuple est composé des gens qui ont gouverné de ceux ak ñi ak ñi gagnéwul ak ñi neutre c'est nation donc il faut ñu ci loolu man problème parce que à chaque fois nag on te dit que ni yii ngay def nii moo tax doo avancer politique mais lan mooy avancer politique lan mooy la notion d' avance politique mooy def parce que ñi ngi wax suñu xalaat c' est la première fois ñu wax ko. c' est pas la deuxième fois ñu wax ko. fii ñu toog nii góorgóorlu nañ nekk ay conseillers municipaux dañuy wax suñu xalaat. góorgóorlu nañ di jàngal ay étudiants di jéem a former. ñëw naan leen lan. faculté des sciences Abdoulaye Wade génnee fa. Mm. Bassirou Diomaye Faye mi génnee fa Sonko génnee fa beaucoup de ténor génnee fa. fa faculté. Mm-hmm. lañ fay jàngale si droit warut a dëppoo ak ni ñu war a doxalee ci réew mi. waaw oui merci beaucoup merci beaucoup professeur.